Muhammadin ak njabootu Serigne Touba gépp di siyaare Serigne Cheikh mu sëriñ Salim mu mbake di ko ñaanal mu yàgg fi loolu di gën a ñaanal buntu Ahmadou Gueye muy Serigne Mourtada ibnu sëriñ Saalihu Mbàkke mu yàgg fi loolu te gën a wér mu mel ni kàddu yi sax xëy na du gudd ndax waxtu wi dem na euh, sëriñ Abo sëriñ Abdoulahat mu sëriñ Seex Say ak njaboot gi fi teew lépp ak waa kër sëñ Mahamadou Kara sëriñ Basiiru Mbàkke ñu ngi leen di nuyu bu baax sëriñ Abdou mu sëriñ Basiru mu sëriñ Modou Xabaat di nuyu njabootu sëriñ Tuubaa gi fi teew gépp nag dafa mel ni tolloo nag bu sëriñ aboo waxoon ba noppi dootul jaadu may wax defe naa loolu mel na ni mooy yoon wi mu mel ni Ahmadou Gueye Fifty yàlla dafa ñu boole jaare ko ci Serigne Saliou Mbacké ndax DSTV la ma biisu ngoonee invité ci waxtaanu Serigne Saliou mu sponsoré waxtaan wi invité ñu ndogu man ak Serigne Saliou Samb mais ak ñi ma àndaloon ca ca émission ba ñu fay waxtaan bam ne ma bu déwénee 5 septembre 1895 bu dellu seetee dinaa la invité ci waxtaanu Serigne Saliou moo ma indi fii tey ñu ko ci sant bu baax nag Serigne Abo man nii ma mel seen maam moo ko def tasawud sixaar sëriñ saalimu mbàkke moo ma ko jàngal maanaam bu ma nee moo ko jàngal fiiraw wuñ ko maag waaye moo digal ki ma ko jàngal bi ma jàngee tasawud sixaar jàng jawharu nafis jàng nax ju xadaayil xaaj ba nekk ci digg bi la ñëw lagan ma di ko romb di jàng ci sëriñ Saliou Sylla booba booy dem jógee suñu néeg yi ñun jàngalekat yi da ngay romb sëriñ mu toog te boobu mooy xalif général ma romb ko mu ne ma galaskaay ma ñëw mu ne ma lii nga yor lu mu doon ma ne ko maj moomu sëriñ Touba bi la maa ngi ci téere bu ñuy wax naaju xadaayil xaaj mu ne ma indi ma xool ma jox ko ko mu wëlbati këyit yi ay yoon yoon di ko xool ba mu yàgg mu ne ma yow de jàng koo dara ma bëgg nga gën a góor góorgóorlu waxam jooju rek daa mel ni daf maa sànni ndax saa yu may jàng même bu ma saan a toog ab diir sax amuñu jàngalekatu xam-xam bu ñu jàngal man dama naan njom ndax waxi sëriñ Saliou jooju yi ginnaaw bi la ñu indil sëriñ Xalil Mbàkke ab sëtam soxna moomi mi bokk sëriñ Moustapha mu sëriñ Saliou ndey ak baay moo ko jur sëriñ Xalil Mbàkke moomi moo ñu jàngal ba nu àgg fi nu àgg yéen ñépp mën ngeen seere ni sëriñ Saliou Touré ñett ñeenti doomam muy sëriñ Moustapha Touré sëriñ Saliou Touré sëriñ Mourtada Touré Baye Dame Touré tasawul sixaar maa leen ko jàngal ba mu bayyinul iskaal bu xaadima jaxata kale ñëpp gis nañ Touba la fa Murtala di feeñal ñëpp ñi nga xamante ne bi am nañ seeni gone ci biir Touba te bëgg ñu am xam-xam bu gaaw ci Murtala Touré lañ leen di yebal waxtaan wi nag du gudd fifty Sëriñ Saliou defar ci distance la gën a mane defar ci distance la gën a mane ila tawaalifi yaquudu llahu asraara laa ilaha illa allahu daal na Sëriñ Tuubaa nee na sama taalif yi secret yi laa ilaha illa allah yépp mi ci biir daal na ci mujj gi ku ko mas a jox sa doom danaan la demal nga yar ko te jàngalu jàngal ko loola nag maa koy barkeelu sama daara yee ma sañ ca ko loolu moo waral adduna bépp jël seeni doom jox ko ko te daana wax ni Serigne Touba daf leen a woo njaaree ñoom ñëpp ñu ñëw nee na njabootu Serigne Touba gépp ñëw mu ne wul leen taalibe yi ku mokk may duy nee ne wul leen taalibe yi ku mokk may duy daal na ndigalal Serigne Touba daara yi daal na bu ma amutoon kenn ku ma ko àndal nag dinaa samp dinaa samp daara yi ba sëñ Tuubaa xam ni ku defar ay néeg bëgg ngaa wut koo ca def ma def ba ma def loolu su yàlla dogalee ma am ñu ma ko àndal baax baax na su amul ñu ma ko àndal sëriñ Tuubaa xam ne bëgg-bëggal ba maa ngi ci woon waaye daal na yéen nag maa ngi leen di sant ndax yéen a tax ma am ñu ma àndal liggéey sëriñ Tuubaa kon soo amee cofeel gi nga am ci moom bane ne danga koy sant sëriñ Saaliwu sant ko teg teg gi la teg teg gi commerce nekk sant sëriñ Saaliwu jigéen a gaaw te yow Amadou Fifty li ma lay wax xam nga ko sëriñ Saaliwu mas naa wax ne du ma yar sama nit kenn di ma ci defal dara bala laa jooyee jàpp nga bëgg a jël ay koppar jël dongog Serigne Sall di ko jox bu pare teg ci ay wor ak i lal Serigne Sall da koy kal képp koy ab donga xam nga li may wax képp ku setul képp ku yàlla dimbaliwul munoo jaxasoo dongog Serigne Sall ay dogal loolu moo ko def moo ko ñàkk ndax nee na defar nit ba noppi ba yàlla def ci moom li def ci moom ba noppi ma wëlbatiku di ko yàqaat du ma ko def moo tax da lay am na dong bu ko mas a tàggu ne ko damaa bëgg a ñibbi sëriñ bi génne aw dix ne ko lii rek moo tax di dem waaye jeex na toogal fii ñu ànd liggéey sëriñ Tuubaa sëriñ la boo xam ni sëriñ Tuubaa ko def li mu mel sëriñ Tuubaa mas naa sóolu sëriñ Saliou tiim ko yor lu mel ni ab kër sëriñ Tuubaa la gees daal ne jamono la may laaj jox naa ko Serigne Saliou borom jamono jooju ngay dégg doonul lu mu créé doonul lu ko kenn créé Serigne Touba bi moom yëf yi moo ko ko jox yéen ñi jàkkaarloo man di jaboot sëñ Ahmadou Kara ñun ñi nekkoon ci biir kër Serigne Saliou xam nañ ne oto bu mu rafet la bu ne Serigne Saliou la ko jox waaye am na ci ngërëm bu ne soo mësaan a dugg ci kees sëñ Sall fekk kéwél bu tëdd sëñ Modou Kara fii may waxee yow nii boo déggee mu ne defaral dama ndékki ñaar fukki xar ak juróom-ñett sëriñ Sall ne ko joxuma lu la rey sa cër laa la jox loolu mooy li jël sëriñ Sall ko defu fay dinaa leen jox misaal sëriñ Fallou mu sëriñ Cheikh Daaru Rahman sëriñ Sall danoon dem jurul ñëw bay dugg Daaru Rahman kërëwee te ñi te ñi xam Serigne Saliou otoom lu ci ëpp góor yi góor yi jéeg mi yoroon oto bi da daan tàggee ba ay kirit da ko daan fàttee am góor ay ay daal da ko daan fàttee am góor a dindi ruu bi sëriñ bi toog na le sëriñ Fallou mu sëriñ Seex sëriñ Galas xam ngeen ko sëriñ Galas daal di ñëw ne góor a xamul ne sëñ Saaliw de mu ñëw ne góor a xanaa bëgg defar mu fula bii mu ne ko waaw sëriñ Gallo sama ko nettali de mu ne ko andi ma puusal la ko yóbbul la ko biir Tuubaa defaral la indil la defar ko indiwaat ko ñu mu yàgg mu ne ndongole kaay ma ñëw mu ne ma kuy sa ma ne ko sëñ Cheikh Darou Rahman nee na mu jël kaala bi taf ko ci bët yi di wàcce ay xéwal ndax ni ma doxee góor nee na ma ne ko góor nee na ma ne kii la sa sa maam Serigne Saliou nee na booba xam ne kooku mooy Serigne Saliou ko nee na ñuy dem di dem di dem di ba ma ànd ak Serigne Cheikh dem siyaare ji sama waajur nee na ma toog ci ginnaaw Serigne Cheikh. Serigne Saliou ku ne xam na ni su amee gan bu mu fonk balaa tàmbali bala ngaa teg laaj dem na tàngali café gi wala ñeneen ñi ko daan tàngali dem nañ tàngali sëñ moom café café lay lay teralee gan gi mu gën a fonk biñ tegee café bi sëñ sëñ bi xel ci benn kaas teg jël ko jox Serigne Cheikh daal ne bërëb buut boot loxo yi wéy dugg ci kees suñ mu daw lay sëñ Cheikh ñu ne du naan ko de maanaam bu ko dee naan ciy barke wi ndax médecine bi mu doon def tax na café daawul ci daawul xëru ci mu ne galas man de xam nga café dama guddul naan dama ciy barkeelu waaye mën ngaa naanee nit naan may ma ci li café gi tàng tàng sëriñ galas da da ko di kaat bi ñuy boo kaat bi sëñ loxo yi génn ilaha illallah daal la sëriñ Cheikh ndax café gi yaa ko naan mu ne ko ah sama doom ji laa ko jox mu ko lépp bi ndeke sëriñ garab la bëgg a fay kulo boobu mu ko doon puusal moo tax sëriñ Saliou ku xëy ci moom benn bis wala nga gont ci moom benn ngont mu nungul ko sëriñ Tuubaa mu mooy ma wax bu leeral leeral leeral leeral leer sëriñ Saliou moo ma ne ma moo ma wax jàng bu baax suxaraawul jaahiliya mu ne ma as suxaraawu sitta noonu la ma ko wax ne ko waaw mu ne ma am xewar sax toggal nañ ma ko ci mu ne ma aw ma téere bi dama ko doon àbb di ko sotti di sotti saraa bi di sotti nasu bi bañ toggal ma ci am xewar ne ma yéen nag da di jàpp téere di yàq bu ñëwee nii ngeen ñëw di ma laajab xaalis daal ne ma man ma ne ko waaw mu ne ma ak Serigne Abdoulahad ak Serigne Souaïbou ak Serigne Abdoulaye Diakhaté ma ne ko waaw mu ne ma ci benn téere bi alxuraan lañ jàngee ba mokkat te boobu sëriñ baa ngi njaareem téere yi jàllaa ñëw baatul jàllaa ngeen a mokkal mu dolli mu dolli ñu beneen téere mais ñu téye leen ko di ko wàkkate ma ne ko loolu mënuñu ko mu ne ma jéem ji rek ak jaamu yàlla sëriñ Saliou ma ko wax may tëjee fi may ndax du ma guddal waaye bu temps bi dinaa leen bégal seen maam man lu rek laa soxla aw man leneen lu ma soxla fii may wax yow nii mën naa dem ba natt sa maam ba xam ne bu ma tëddee sama kër dinaa tedd man ndax ba mu amee fukki fan mel ni ku ñu wen ginnaaw la ma feeñu na ma yow galas ma ne ko ah ma ne ma yow ñu jàpp ne jóg naa fi yow bu ci bokk barke sëriñ Bamba Sëriñ Saliou ma ko wax te la tax ma wax ko xam naa ko tey daaru xudóos la toog di attaay ba mu yàgg mu ne bis bu seng doxee sama digg yéen ngeen xam li ma doon cee da xam nga ne gisu sëriñ Saliou lu bari te sëriñ Saliou koy jariñ ba bu seng doxee sama digg yéen mooy bat càppaat boobu ñu ko defal ba nga ko defee la tàmbalee lijjanti di koo koy ñemewul bor dafa am pay ñemewul bor dafa am pay te fii may waxee yow nii dong yépp xam nañ li may wax ku ñam li ma ñam xam nga li ngay wax fi ne nii bu sa yëf naree naree débordé da koy kale lu baax rek ngay jël bu naree débordé da koy kale lu baax rek ngay jël Serigne Saliou Mbacké loolu la yàlla dogal ci moom màggalub 2004 mbooloo mi ngir jëmmi sëriñ Saliou lan ñëw jox addi sëriñ Saliou Mbacké kii li muy la sëriñ sëriñ Tuubaa nee na ah waaw góor ak sëriñ Tuubaa sëriñ Saliou Touré moom bay bi bay boobu ñu ngi Saliou ba daa mari sëriñ ma ko addi sëriñ Saliou ana tey sëriñ Saliou yeggaleel ci sëriñ Saliou mënoon naa gën a yaatu waaye damay tëj waaw suñu Mbàkke jërëjëf sëñ Abdou dafa waxtaan ak ñun waxtaan wu yaatu lii may wax nii ku ci bëgg xam lu bari da dem laaj ko lonka Dramé man li may wax sama ndeyjoor bi danaa ko laloo man Serigne Saliou yëkkati million ne ma demal tabax si kër man ba ma koy jox boobu maa ngi ngéejaan ma ne ko lii nag mu ne ma da ngay gone boo xam li ma bëgg rek ci nga ne man ba may tabax sama kër maa ngi ci biir daara ji Ibrahima Mbaye waxuma dëgg ba may tabax sama kër maa ngi ci biir daara ji boobu ciment yomb na mu ne nu sëriñ Touba mii daa am benn xaadi bu nekkoon Jurbel di àtte ci tribunal bi sëriñ Saale wooy wax de sëñ Basiru petax teewee na ko mboolem kuy jëwriñ teewe nga ko te ci internet laay te booba dafa jël loxo yi def nii daal ne liggéey bi may liggéey sëñ Touba yàlla na àggee ci yéen ñii ba muy làqu kenn manquéwul ci ñun ñam ko waxoon ñam lan laaxoon ta loxo ba ne nii yàlla na àggee ci yéen yi ñun ñoo ñun ñoo fekke bi sëñ bi làqu ñun jëwriñ ko mu nañu xaadimi bi muy àtte ci tribunalu njaareem bi day def saa yu ngoon ñëwee day jot day ñëw ci sëriñ bi bu ñëwee ci sëriñ bi toog sëñ bi may ko ci boppam lu mayul kenn nee na genn ngoon nag sëñ bi ne ko yaa xaadi maa saa taqdi al yawma loo loo àtte tey xaadi bi ne ko li ma àtte tey mooy yaa boole ñaari maamum yoo xam ne imaam bu leen boole woon ku nu yow kenn ko ne ko subhanallah xaadi bi ne ko sëñ bi ne ko waaw xaadi ñaari maamum yooyu kan lañu mu ne ko sëriñ Mbàkke Busu mi du siggi ak Seera fal bi du sëgg nga xam ne yaay seen imaam ñoom ñu say maamoom waaw léegi julli bu fekkee nañ ko xamee woon yaay sama yaay sama imaam defe ko neneen te xaw ma dañ koo soppi ndax danaa la topp kon sëriñ moo boole ñaari maam yu kenn ku ne lay jiite genn julli la fexe na ba nga xam ko sëriñ bi ne ko àtteel loolu looloo am ñaari imaam ñaari maam yépp maay seen imaam danaa leen yóbbu loolu sëriñ Saliou Mbacké du ko wax loolu sëriñ Saliou moo ci tijj suñu bopp genn ngoon sëriñ bi toog ba yàgg mu ne ma galas ndax xam nga kuñ ma tuddee man li may wax amu ci kenn ku taxaw koo xam ne ragal naa koo wax sa kanam bi nga xamee ne marché naa bàyyi njóore jatara sama bàyyi ca Mbakke bind haasihi l abiyaat allafaha cheikh mouhamadin il fadil allazi tarabba taxta sinni cheikh saaliha sëriñ diili mu sëriñ saalihu dane ma lu tax nga ne cheikh saaliha ma ne ko sa waay sa bàyyi ma ko wax nim ma ko waxee mooy dane ma ndax xam nga kuñ ma tuddee ma ne ko xaw ma ko de waaye nit ñi nee nañ yonent yàlla saalihu mu ne ma defe nga ko ma ne ko am ma ne ko am nañu ne naqiyun taqiyun saalihu jooju yi sëriñ bi wax ci biir mu muqaddimaat saalih jooju mu wax ci yonent bi moom lañ la dippee mu ne ma nigal ma wax la ci li ma la ci mën a wax mu ne ma bi ma feeñee ci jaare waxuma ma juddoo de bi ma feeñee la ma wax xam nga lu sëriñ bi def ma ne ko déedéet mu ne ma bindukaay la jël ak këyit weex tal mu ne ma xam nga lan la ci bind ma ne ko déedéet mu ne ma jege si li ma wax la ko yëkkati quraan yi bi mu daan jàng quraan yi bu wert la képp koo xam ne yaa ngi doon fréquenté sëñ bi 2004 pour quraan yi bi daa wert mu jël ko teg ci ginnaawam bind ci tag bi alif na ma lii lan la ma ne ko alif mu bind laam bind saat araf mu bind naa ma lii lan la ba ca mujj ga mu ne ma xam nga li ciy kéemaana ma ne ko de mu ne ma sëñ bi ci kaw la ko maas asaaliha sërif abibullah ne ma maasaa xaala seex lu sëñ bi wax ma nettali ko bil luxatil arabia luxatun fusha bi ma ko nettalee bay daaneel sërif ne ma man sóobun bil madhi képp ku jàng grammaire xam nga li may wax am dahu saaliha wala ani saaliha sëriñ bi ne ma yow bu ko taawil bàyyi ko nii ko tibbi def sëriñ Tuubaa sëriñ Saalu di xool wenn bayit bi mu yàgg mun a bayit bi day sarixtuhu wa malaktuhu li nafsi haadal baytu sarixtuhu wa malaktuhu li nafsi bayit wi sàcc naa ko moom rek sama bopp muy a dunia liyal masaliha wa bil masali uhaynu saliha ma ne ko tajammahatil masali kullan indakum mu ne ma alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala sayyidina wa mawlana muhammad ngeen may ba tuuti rek ñoo ngi lay sant bu baax ci woote bi ak bi euh, yéen 24 actu bu affaire jaww ñu ngi leen sant bu baax ci teewaay bi ngeen jéggal moo bu baax nag te xam ni lu ci dëng mën a lu ci jub mën bu ma ko waxtu yaatu woon damay jël sama temps waxtaan yéen bu baax a baax allahumma salli ala sayyidina muhammad